ba école ubbee ba léegi mënuñu jàng normal da ngay ñëw jàng si lundi ñu ne la suba mardi débrayage mercredi total léegi semaine prochaine ñu lancer bene beneen plan d'action. ñun fii élèves lu ñuy dund dafa métti premièrement transport ndax gis nañ léegi fu waay wàcc cent franc beneen bi ci topp ñun suñu gouvernement bi dañoo yàq système bi ba xam ne da ngay jàng am diplôme ba pare mais doo am niveau léegi lu ñu bëgg continuer du ñu coloniser ah continuer di ñu manipuler. nga xamante ni dañuy xiifal alors que seen doom mu ngi à l'extérieur li ñu bëgg mooy jàng bii ñu ngi ñaan yàlla réussir ko buñ ko réussir dinañ lancer plan B te plan B bu dikkee mooy gën a métti yaakaar naa. bi école tijjee ba tey defuñu devoir wala devoir yi ñu jot a def ñu cee jot en plus parfois da ngay ñëw ba école ñu ne la defuñu ku maanaam programme bi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk classe de terminale xaajala guñ sax et que trois mois moo ñu dese donc jot ñun ñu xeex parce que dañoo bëgg a jàng normalement les cours ne se font plus correctement da ñëw ba egg am na ci yoo xamante ni yu ci bari yoo xamante ne ni découragé wu lañ parce que lan paas da paas ñëw ba fii ñu naan la tey defuñu cours wala dañoo am débrayage nangam ak nangam on banalise pas leur acte parce que ñoom ñoo ngi seen droit léegi nag jot na ñun lan moo pour ñu xeex pour jot suñu moo nekkoon suñ koy waaye donc dañuy am yaakaar def suñu xel ne incha allahu rabbi buñ defee bii nii suñ jàngoro yi ñuy xeex dina saafara avant tout lañ def suñ bopp te ñoo ngi ñaan incha te ba nga xamante ne nii beneen marche du fi amaat ñoo ngi sàkku ci nguur gi ngir yàlla mu dugal loxo parce que benn réew mënta avancer sans développement fas yéene nañu yokk suñ loxo lii nii première kese la incha allahu rabbi buñ gisaatul yeneen yoo xamante ne am nañ saafara